xamante ni ah dafay euh, génne ay souvenirs yu bëree bëri bëri Aliou Sow mi ngi ci doon raconte benn anecdote bu oui dama ko xeex ndeysaan avec un ami. Mm. Euh, Alassane Alassane maa ngi lay def kooku c'est le directeur de l'hébergement du Novotel bi nekk à la Défense. Mm-hmm. Euh, Alassane Diagne ndeysaan mi ngi fa ba tey et ñu nekkoon këram jour boobu la ñu sonn jour boobu la am lu ma metti mm. mais surtout Turquie Turquie bi muy bi y a une fatigue remonté remonté remonté la Turquie boobu. non non 1 la. tu Turquie 1-0 la ñu dóor. non loolu la ñu doon noonu. waaw parce que ci Femba la dafa mel ni ci Femba la ñu dugal non. Mm-hmm. Euh, Gomis xam je me mm-hmm. rappelle plus. en tout cas Turquie bi moom. Turquie Sénégal moom jour boobu am naa lu ma métti trop bi Sénégal. voilà mais bon. Euh, c'était bien c'est c'est comme ça et puis bu xanaa xam nga nan nga gën a bëgg Sénégal mooy boo nekkee bitim réew mhm. ngay gën a ngay gën a am cofeel ci sa réew ci euh, ñaar ñaari mbir yoo xam ne dama ci gën a fier quand je suis mooy football ak Youssou Ndour <laughs> hmm. xaw ma lan la. Youssou Ndour wayam yi daf may daf may kii. daf lay fàttali daal Sénégal daf may wan ne man sénégalais la en fait. macha allah donc mu ngi noonu mu nekk ay moment yu amam solo rawatina euh, champion d'Afrique bi nga xamante ni itam Sénégal jël na ko. loolu moom yéena tamit émission yu bëree bëri merci beaucoup donc mu ngi noonu dañuy daal jëli piw ba léegi léegi. ci yaay yooyu ñuy wax ñoom ñoom suñu référence <laughs> donc moo tax lu mu leen wax rek baax na mm-hmm. ñun dañ ciy ànd nangu ko bu baax a baax ndax ñoom mm-hmm. dañuy roy ay ca Fatima doxalal doy na baal ko baal ko doxalal doxalal ah. <laughs> voilà euh, ci fin d'année la nekkoon kon dañ ñëw rek euh, tënk li nga xam ne moo jot a am Euh, ci fête fin d'année gis nañu rek euh, mbooleem euh, artiste wala ay woykat jot nañu amal ay bés yoo xam ne nag ngir rek jëmmal dugg teeg 2024 bi waaye nag lañ ci mën a jàpp rek bi yoon la ca gën a fës bokk na ci Youssou Ndour mi nga xam ne nag amal na ay soirée yu am solo ba ca njëkk rek wala sax laataa ñuy ñëw ci moom mooy mhm. jour 31 décembre Euh, Marième Faye Sall ak Macky Sall defoon nañ seen sant rafet ànd couple dem ci soirée Carlou D bi. waaw loolu tamit bett nañu ba mu surprise waaw sax la ci moom euh, Carlou D am dafa toog rek seen leen ñu dugg si Macky def kos bu raf. waaw kos bu jot. mais dafa mel ni wàcc bi mi ngi koy def en tout. voilà mi ngi koy mi ngi koy bon xamuñu euh, lu motif parce que nag. ñoo ngay génn di di di dem wi mais ci le premier bi rek Aliou Sow dañu toog rek. Euh, j'étais là-bas Sine Marème Faye ne sarax dugg si. ci soirée bi ñëw toog fi nit ñi toog daal fi ñu toog la toog comme koo xam ne dafa jënd bi ñëw toog ba mu jeex nag. <laughs> gis nga cinq minutes la toog. suñu <laughs> grande dame macha allah ah Marème de tey daa calme xeeb xeeb dañ ci teg rek mu tëb ak saag bi. <laughs> jaxasoo am fa mu nekk ci voie. Euh, Youssou Ndour aussi rendre ko hommage ndax euh, peut-être kontaan na ci teew bi nga xam ne teew na fa ci loo xam ne yëgu ko ndax amoon na ay mm-hmm. place yoo xam ne mm-hmm. dañu ko réserver woon pour ay autorités wala sax ay ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam waaye moom daal dafa préféré dem toog fi nga xam ne fala la euh, ñi nga xam ne ñoo jënd ay billets ñëw toog. Mm-hmm. ànd ay ay gardam mm-hmm. ak quelque xaritam amal mm-hmm. euh, ñu xool rek extrait bi gis ko fecckat bi. <laughs> bi macha en surprise la suñu bëri bëri aussi dafay wane lu bëri ah simplicité bi nga xamante ni tout le temps dañ koy seetlu ci moom la di Marième Faye Sall Est-ce ndaw si man dafa neex. dafa neex parce que waaw dafa dafa dafa ndaw si ni mu lii nii. noonu lay def biir këram. dafa simple suis sûr parce que parce que parce que elle est free. parce que mais biir këram indi na fi paan paanu cuuraay ba teg. waaw gis nga yu façon yooyu la quoi hmm. c'est la femme sénégalaise c'est la euh, mooy la la grande sœur bi nga xam ne wala la petite sœur wala la maman. Hmm. bi nga xam ne mu ngi nekk ci biir kii am benn Fatima Kide bu nekk ci biir këram di di di di galayaame di def lu ko neex. di kii et ça hmm. ça c'est c'est le côté naturel de la femme jéewul un petit solo colin bi sax gis koo xam ne day takk ay or yu bari. day sañ non waaw waaw simple. Mhm. xam nga et ça moi moi j'aime ci façon waxinam sax da ngay sentir ni kii c'est la femme sénégalaise quoi. day teesante day waxtaan day werante day kii. <laughs> Mhm. elle naturellement une femme sénégalaise. moi bosu bosu moom. Euh, bosam bettul kenn mais lu ñu xaarul woon na ndax bi ñu bi mu dugg see rek euh, gis nañu ña yëpp dañ ko yuuxoo di apprécier le fait que mu ñëw. Mhm. Euh, mbir moo xam ne bu bu bu bu bu bu fësoon la loolu ci boobule événement waaye nag leneen li nga xam ne jot président kay Macky Sall moo bett nit ñi ndax mosuñ koo gis mu génn di dem ci euh, yenn événement yu mel noonu ko soobee xamuñu mm. xam nga mm. euh, c'est vrai ci Macky Sall laa gis xaw ma boo je sais pas mm. peut-être yéen nga gis ko mais dafa am benn dafa am benn baal boo xam ne Senghor Abdou Diouf euh, ak <coughs> Abdoulaye Wade dañ ko doon dem benn baal dégg am na benn baal bu daan am saa yi xaw ma eh, baal ma damay fàtte baal bi. baal bi waaw da daan am baal ñoom ñuy fecc. ñoom dañu daan fecc dégg nga. bon xaw ma nag eh, ci Macky Sall daal laa gis. mais Macky waroon nañoo may feccam nag balaa muy dem nag. ah mais Macky fecc na ci kii bi ci élection yi. ban ah. élection non non yi fecc na woo mooy bi Youssou Ndour di wooyee ba oh. nag fecc bi dese na ko de temps bi mu ko tegul. xam nga nit ñi aussi dañuy am eh, eh, xool ko ci benn temps nag. mais xam nit ñi dañuy dañuy nit dañuy complaintante. xoolal xoolal Macky moom peut a l'air un peu plus calme wala am benn côté timide et gis nga sa femme nu muy kii xëy na jëkkëram jabaram moo koy complété góor ak jigéen noonu lañ mel quoi kii dafa am foo xam ne dafay am ay ay ay ay manquement parce que yàlla noonu la ko bindee mm. euh, même li ñuy wax ni du reetaan ak yu demee noonu gis ngeen jabar ji nga jabar ji ku ko xool xam ni mm-hmm. jabar ji moom day day day day day day tas kër quoi ah voilà zéro stress lay dund quoi voilà te kii nii ñii li mooy wane ni ñu mel ni mu ñu jógee ci nguur sax xam nga ne mi nguur ak ñàkk ñàkk nguur la yamale mm. tey boo ko yóbboo ci ci la preuve xoolal ñoom mosuñu bëgg dëkk parce que palais déjà ils ont jamais ah, voulu vivre différents palais. façon moi j'aime euh, bien man moom euh, mën naa wax ci Mariem loo xam ne peut-être comme ni ko Sénégal yëpp gisee. Euh, tey jii bés bu nguur gi jeexoon boo xëyee mën nga koo fekk marché Tilène mu toog. si muy muy muy ndugg ay ndugg. mais Macky moom vraiment wax dëgg yàlla man aw ma dara loo xam ne war naa ko. ma Macky il doit avoir certainement ses potes man dégg naa ni man bon je ne le connais pas mais dégg naa ni ay ay ay ay nitam lay lay day day day toog ak ay nitam di déconner di di di di. Ah mais peut-être aussi euh, posture présidentielle bi moom moo tax rek des fois. Ah, euh, bu moom moo ko wax ci discours am nee ay reetaan. voilà des officiers bal des officiers waaw am na ku ma envoyé ma bal des officiers la woon. <laughs> mais des officiers boobu. da gis euh, maanaam. Euh, président de la république day ñëw. day fecc. kii nee na. mais ay nit lañ comme ñëpp. waaw loolu la si mais day kaañoo sax mais Macky Sall day kaañoo day day day day. wax waaw moo dàqee mu tooñ gars mu tooñ gars yi quoi. voilà mais xëy na peut li mu nekk président aussi waaw moom boo nekk président tamit. en tout cas surprise première dame moom moo sénégalais yi ñu ci euh, kontaan nañu ci te gis nañu nanga xam ne euh, doxalee ne ko ci boobu la soirée waaye nag boobu la Euh, premier la woon ba ca topp rek euh, di samedi passé mooy le 6 bi aussi euh, mm. Youssou Ndour tëggaat fële ca Grand Théâtre di amal amaloon it Grand Bal parce que ci ñaari date la koy def chaque année waaye nag ci fi ñu toog rek la ñu toog seen Adji Sarr Adji Sarr men ngi noonu daaw na ma nag ba sonn boole ceeg di sarax <laughs> waaye dugg nga voilà d'accord Adji Sarr def euh, bu rafet moom it ànd ak euh, garde rapproché wam bile eh nga xam ne def na lu ne pour nit ñi bañ koo jël ah léegi dafa am waaw am na aussi ñeneen en face garde rapproché boobu garde rapproché gars yi gars ko agressé ko comme comme mais si si si si ah si elle n'a rien à se reprocher lan lay soxla ay garde ah mais bien sûr mais kii Adji Sarr mais ci même ci garde bi rek maa ngi ñëw doole yeneen yeneen yi nga xam ne euh, <laughs> jot nañ ko nemmee bu amul garde garde rapproché gars yi gars lan lan am. lan la lan la def mais li mu def mooy li fi xew mooy mooy li mu li mu li problème yi mu am ak Ousmane Sonko. ok mais Sénégal ñu bari dañ koy saaga ay de ak yu demee noonu apparemment une macha allah ah moo nekkoon staru soirée bi ndax nag ñun dañu toog rek. yem ci la moi je trouve euh, bien foutue elle est très belle <laughs> euh, yal na ko yàlla dimbali yow lay jiñ ci ba tey garaawul mais yal na ko yàlla dimbali non man xam nga man dama xam nga man man pour man <laughs> booy la. 16e sur la liste. non man pour waa ba tey mais pour man booy bi dafa dafa war a dafa a xàppi. <laughs> doomu Sénégal la ndeyam teel na dee. xam nga ak yooyu dafa war a xàppi quoi et puis doomu Sénégal la quoi ah. dafa war a parce que xam nga ay Sarr pratiquement sama doom ñoo tolloo. waaye donc donc elle a bien. ni ma ko gisee nii moi j'aime bien il faut qu'elle soit heureuse qu'elle soit bien. d'accord wala toujours di tëju ñu koy garder ba hmm. bis jot. ba liberté gën fee am pour moom comme ça mu dem sëyi am jëkkër bu baax mu topp donc moom ay doomam man yooyu laa ko yéene mais il faut pas xam nga moo moi je bien. dama ko yërëm quoi mais ci ci garde yi rek balaa may ñëwaat ci mbiru mbiru Adji Sarr ñun fi ñu toog kii yee ko jege noonu am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jàkkaarloog ak ñun fi nga xam ne fa lañ toogee hmm. ay garde du corps loo xam ne dañu tasti nit ñi jàkkaarloo ak ñun nag dañu xool d'accord ah, yàgg nañ ci te xam nañu tamit euh, ñi nga xam ne dañuy rax ci biir di saytu li nga xam ne moo xew ba tey euh, ci loolee ci abimaam def na robam bu classe sexy mi ngoog euh, ci yooyu les image moo nekkoon nit ci mbir mi waaye nag même Aliou Sow Adji Sarr lenn lañ mën a jàpp ci li nga xam ne ànd ci li mu ànd ay garde jàpp nañ ni bu doon euh, loo xam ne ci defum jàmm rek doo jël ay wala ay gang boole la euh, diri la di la indi ci ay soirée bu dee ci jàmm rek ngay dox beneen bi mooy euh, laata hmm. li nga xam ne waaw ma la ci jàmm lay dox ak ñàkk dox ndax jot na fi am waaye nag leneen leneen leneen ci ci liberté boobu ma doole la leneen fi ñu toog ci ginnaaw gis nañ ci group xale jigéen yoo xam ne dañu ne bu ñu amul woon lu ñuy seet wala àndoon ak garde du corps dinañu ko daal euh, dinañu expliquer li nga xam ne moo jot a xew ci réew mi. ndax nag <laughs> kon heureusement ndax nee naa expliqué na ko loolu expliqué na ko tribunal. kon heureusement lan laa wax heureusement kon duñu euh, amee gàtt teggiwuñu tuuma viol yooyu ne euh, mu viol bi mujjul am. mais condition yooyu wax nañ expliqué nañ ko loolu. waaw mais loolu moo indi nag li xew Aliou Sow nag bañ koy jëlal ay garde du xam nga nag nit ñi duñu fàtte xaju xaju fi du noonu. mais léegi kon Aïssa dafa tooñ kenn waxula dafa tooñ. waaw mais kon amul am na yoon leeral na carrément ni moom viol bi nga xam ne daf ko doon jiin euh, Ousmane Sonko. amul

jëmale ci Adji Sarr wala keneen keneen maa ngi ñëw ci moom mais laata Aliou Sow am na droit am garde ah, corps waaye nag remarque la ñëpp def ku def jàmm Euh, amoo droit wala sax ku koo xam ne leer na ne yow mi defoo dara ci n'as pas besoin de garde du na 40 garde du corps. waxuma ko Ousmane Sonko Adji Sarr moo moo ñëw soirée ba gis li ma gis loolu laay expliqué ci loolee tamit euh, fi ñu seen Adji Sarr mu toog am na aussi euh, ay sonkorisation bi mujjee commencé ndax nag dañu koo gis ci benn wàllu ba beneen côté ba Gabriel Kon aussi mi ngi fa te gis nañu fan yi audio te yi nga xam ne jot na am lancante pig yi tàmbali ba yuuxoo yu jolli. d'accord muy doy waar donc. Euh, Mia wax leen. Mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga rapidement public. Mm-hmm. oui franchement une personne publique am nga trois quarts du corps même man mii sax. parce que homme public laa maa ngi wax ni dama war a am public bu rafet defoo fi. déedéet déedéet non non non attends attends loolu wax maa ngi wax. d'accord man damay topp di wax. am na ñoo xam ne neex na la. neex na leen am na loo xam ne neex na la. voilà man ma am garde corps. am na solo ak lu ci lu ci lu ci am man de man billaahi bu man actuellement nii bu ma amoon xaalis nii nii nii nii nii nii nii. da ngay wut garde corps am nga ci droit léegi Fatima ñu jaar ñu jaar ci benn benn à part peut-être li ma yor comme arme rek. mais man j' am naa arme sama oto. mais à part loolu euh, man am na béréb yoo xam ne moo fay dem dama am garde corps. waaw man jëlee man Alioune Sow. Ah, lu ci munti am daal léegi ci droit quand même loolu yenn ci ay euh, kàddu yi nga xam ne jot nañ ko déggu aussi laataa ñuy tënk rek ci mbiru Adji Sarr fa ñu toog ndax nee nañu la jot a xew ci réew mi bëri na ci ay euh, problème diggante moom ak Ousmane Sonko la amee donc nag jot na mu leer waaye nag di génn di nekk ci loo xam ne euh, amaan na ci sa yëfi bopp la kenn bañul Aliou Sow encore une fois le fait mu génn di nekk ci ay yëfi boppam waaye nag nañu leeral bakkan yi nga xam ne moo fi rot ak leneen ak leneen lu soobee ci coowal Adji Sarr Ousmane Sonko Aliou Sow sixième sur la liste nañu tëj doo ñu jàll ci beneen mooy wax dëgg boo ah. euh, ma nee ne la ma ne la maa euh, ñu jàll ci beneen euh, point pratiquement parce que yeneen yi des na te am na solo. am na solo voilà ñu dem rek ci leneen ci boobu li soirée aussi gisoon na ci ku mel ni am na beneen image combinaison bi nga xam ne jot na ko sol. Mhm. boobu it andi na coow ndax jàpp nañ ne rek daal la mu sol. dara yiwu ci. Mm-hmm. def na nag ab post bu ma gis euh, ci euh, statut am. xam ne na ne rek euh, wax ji ñuy wax ci yére bi la yam bu ko faxasee mu wàcc. <laughs> moom yaa ma wax loolu. dafa mel ni image bi euh, yemagul ñu daal di wéyal rek. dem rek ci beneen point Sadio Mané nag fi mu ne moo nekkoon suñu président ñun célibataire yi. waaw Aliou Sadio takk na jabar ki mu takk nag bokk na rek ci. ay sata bett na ñu bëri ah. waay bett bu waaw. la wala ñun euh, on a les informations qu'il faut quand même. je le <laughs> bon du ibaadu. du ibaadu. la lan la ko kii la. day sellal. waaw ah day sellal. day eh. waaw xale xale buy. masamel na xale bu yiw daal. day sellal nii la masamel. Mm. ah nii la masamel ni nga ko gisee ci image yi. voilà. ñàkkul man honnêtement euh, mm. je suis je suis très content. et très fier pour Sadio Mané. Sadio Mané mooy mooy mooy un gros exemple. Mm. bu jigéen su ma ko amoon ku mel ni Sadio laa koy jox. pas ci wàllum alal. parce que ñoom ñu dara. Mm-hmm. mais mais mais mais ci wàllum yiw. ak correct ak jikko oh, Sadio Mané est un homme bon. Mm-hmm. il est très généreux dafa da Sadio ak ay portable am yu yu yu euh, ak ses portable machin façon nit yooyu. Mm-hmm. Euh, la ñu soxla ci àdduna parce que ñoo ñu ñooñu tëbuñu bay daanu te dawuñu bay. bay bay fakk voilà je suis très content pour pour elle. et puis content aussi pour Sadio Mané yàlla may leen ñu am njaboot bu barkeel Sadio Mané dina am lu baax. parce que certainement ndey ko liggéey. te ku ko lu ko sénégalais yëpp yéene la bokk na rek ci li nga xam ne jot nañu ko taataan muy moom euh, bi muy xam xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi nga am 16 ans maanaam def nañu 2 ans de relation fii lañ toog plateau bi ku ñëw ñu ne Sadio maane kune bii sol na fi su fes sol mayo Sadio maane moom it oui très bien macha allah rappelez juste une chose rek sama maam moo ko daan wax góor bëgg na def lu bon waaye góor bëggul am lu bon. am lu bon mi ngoog. Euh, moom daal euh, li ñu mun ci am rek euh, yéene nañu ko par rapport ak réaction internet yi. li nga xam ne jot na am te it nag ki nga xam ne moom la takk nee nañu doom la ci ki nga xam ne moo yoru chantier bi yu nu mel. Hmm. ci noonee la ko xamee. Euh, muy euh, mbir moo xam ne nag bu ñu bu ñu xafee la ci li nga xam moo tax may tere ne lii di lii de ma <laughs> moo fi bàyyi. ayca expliqué euh, nga xam papa kii. Hmm. xaritu Bakary Cissé la journaliste. Hmm. Bakary Cissé waaw. Bakary Cissé c'est le conseiller spécial bu Sadio Mané. Bakary journal Stade. après dem journal Record. léegi créé na benn sitam mhm. dégg nga Bakary Cissé moom ak papu kii ay ñoom ñoo ñoom ñooy ay xarit léegi nag bi Bakary Cissé dem di euh, dem euh, fale di seeti euh, papu kii mhm. bu daan ànd ak Sadio Mané moom la Sadio gis kii xale bi baax na macha allah noonu la de Sadio na Sadio am na góode boo ci buggee yeneen ndam mm, nga boole ci moo wax solo mais mais bravo bravo encore une fois à Sadio macha allah léegi fi fi mbir yi mujjee laataa ñuy tëj rek Sénégal xam ne nañ ne Sadio Mané sàcc na xale bi balaa timis du jot xew ba tas ñëpp dem ñibbi. sàcc na xale bi ñoo ko bind te noonu la amee gis naa vidéo wala loolu wérul foo gisee vidéo bi man maa gis vidéo bi sàcc na xale bi wala sàccul xale bi gomis sàcc na sa waaw Sadio Mané moom day day dañuy kaan kaan bi ba pare wala day ceetal wala dé non attends attends attends y a un des deux man bo ah, bon c'est que c'est c'est à Aliou Cissé de de de de, euh, de nous expliquer. Oh, waaw. waaw waaw parce que mënu nekk fële nekk fii parce que lui il était en regroupement. moo ma jaaxal tamit. waaye bu ko neexee ñu may ko benn waxtu mu dem mu dem mais non c'est pas waaye nag waaye nag man man takk bi démb la. waaw si kanam xale bi dem na démb. takk bi démb la. Hmm. waaw takk bi bi muy am. Hmm. man moment boobu yàlla rek moo tax. Bakary Cissé mu ngi may dégg. maa ngi en communication ak Bakary Cissé. Hmm. maa ngi Bakary Cissé mu nga ca takk ba nu mu tudd nga ne xale bi mu nga ca takk ba Bakary Cissé ñu ngi wax man ak moom ok moment boobu Bakary Cissé man naa koy wax ci Sadio ba Sadio mu ne ma hmm. Sadio mu ngi regroupement waaw non kon amul dañuy sóob rek. ma hmm. mais vidéo la bu kenn si si si si bàjjë bàjjë euh, oh, xale bi tataaw moo ko génne non du image bu yàgg vidéo bu récent la c'était hier. bu Sadio Mané ñëw. non pas ñëw. Euh, maanaam waa mbokki xale bu jigéen bi. Mhm. ñoo wër xale bi gisuñ ko mais bon yooyu yëpp ay détails la façon. li ci solo daal mooy Sadio takk na jabar mais pourtant na jabar bu baax teel njaboot kan ba yooyu weesu après. mu je suis content mais Sadio Mané est assez professionnel. voilà image euh, mi euh, bi rafet na wala rafetul. ah yére bi. na prestation la doon def ci seen Youssou Ndour bi. ah la sol waaw. yéeg lii la sol lii nag de Sénégal yëpp nekk di wax ne lem sol waru koo sol waaye nag moom mm, kàddu yum ci yëkkati rek nee na wax ji nit ñi di wax daal ci yére bi la yem bu ko faxasee mu wàcc. te moom dafa euh, fasciné rek. faxas mais artiste la nag wax da koy faxas. waaw artiste la nag xam nga artiste moom. tenue tenue tenue de spectacle la spectacle aussi am nañu ñu ne bàyyi xel xale yeeg yooyu. bon ah d'accord ko xel aussi en tout cas Mia Guissé niw lu lañu gis. en tout cas mm. ku nekk bu la neex. Mm. nii nee nañ Mia bi moo leen neex. man personnellement Mia bu njëkk bi man macha allah. Mm. vraiment. d'accord bu njëkk bi macha allah. Euh, ñu ñu ñu tëj rek balaa ñu waxtu wi. moo gën nag Demb Guissé euh, Gomis du sa morom arrêté li nga wax ci suuf. <laughs> man lu ma wax Demb Guissé. déedéet Demb Guissé moo lay tendance fii. dama gis xaritu commissaire bàyyi bàyyi ah, bàyyi jaxase relation ah, yi bu njëkkatee jotaay bi dinaa la ko wax dama gisee ci ban nga nekk bilaay yow da lay wax tey dama gisee mi ngi mi waajal nag bis bu am solo ànd ci ak groupe Walfadjri fële ca place du souvenir le 26 janvier xam naa nañ ci dikk rek bu gënee jege si remercier leen merci beaucoup Aliou Sow expert expert encore Aïcha mi ngi noonu euh, la merci <laughs> beaucoup